ay weer rek de suñu digganteeg jongante falum jiitu réew fii si Sénégal seetlu bi mooy li mu mbëri ñu siiwal danoo bari lool askan wi ku si nekk ak gis-gis bi nga ci amee sëriñ bi moom mi ngi xamle ni candidat yu bëri yi moom amul njariñ li am njariñ day mooy ku si nekk rek nga gëm sa bopp candidat yi moom jëruñuy sonal seen bopp bépp candidat ba falu da ngay sonal sa bopp donc dara doo ko am kii même itam mi mu mu suñu ba pare moom moo koy àggal moo koy continuer ba ne politique wax ba falu ku ci ne da ngay teg sa façon damier sa façon politique nee naa leen Senghor Abdou Diouf Ablaye Wade ba ci Macky Sall ba ci keneen ak keneen Sénégal gii lan jànge doon ay élèves jóge fii dem bitim réew tubaab bi li mu def ci boppu Senghor moom la def ci boppu Ablaye Wade li mu def ci boppu Ablaye Wade moom la def ci boppu Abdou Diouf li mu def ci boppu Abdou Diouf moom la def ci boppu Macky Sall mi ak keneen ak keneen ñoom ñëpp benn lan. képp koo xam Sénégal nga war ngaa mën a yor réew mi. Euh, bu dee ci côté comme ay ñoom Macky Sall comme ñeneen ñi man gis naa ni jamono bii ñu toll nii lu suqali réew mi moo ñu ëppal sens comme di wax loo xam nga politique dafa doon senru kii boo xam ni ñu ci bëree bëri liñ lay wax bu dee ci élection yi nekkul luñ gëm ñu nuy fexe ba jël réew mi la ñuy def buñ paree ñaare ñi toog ci réew mi sax ñoo lañuy ñuy tane bopp ñeneen ñi gis ni bëri waane na ñoo xamante ni si ni wutukaayu xaalis lañu ko def wala sax xaalal seen waaye aw yoon non du gëm-gëm ñoom seen intérêt yi bopp lan seen intérêt yi bopp moo leen tax a jóg waaye réew mi taxu leen a jóg réew mi taxu leen a jóg jamono ji ni ñu ko gisee nii daanaka ñëpp li ma yaakaar mooy doomu aadama yi seen seen njariñal seen njariñal doomu aadama yi taxuñu taxu leen a jóg ni ma gisee man ni ma gisee bi ndax kenn ku nekk yaa ngi jóg di sëppaxloo ngir sa intérêt bopp. jàpp naa ni day bokk ci luy suufe muy mi lu koy avancé loo donte gis naa ne ñenn si ñoom day am nañu jot a retiré seen candidature. waaye ku si nekk rek ak gis-gis bi nga xamante ni si ni moom la ci amee. loolu moom xëy na moom moom loolu moom kenn ku nekk li day sama ngay def waaw dañoo gëmul seen bopp rek mooy loolu waaye gëm sa bopp moom mooy loolu. li ñu def ak li ñu wax du bokk moom li ñu def ak li ñu def loolu du bokk. waaw lu manti xew rek fii ak fan yu néew dinañu xam ñiy dem wala sax ñiy des ci jongante boobulee ñu xaarandi ba xam nu wànneen di mu jékki bëtëm